waaw waaw The King ngoog def si benn don bu am am solo ki ñu gis noonu moom le roi The King le roi des arènes Modou Xarañ loo tey lu la ci carton ginnaaw bu ma la nuyoo. lii pour ñun la ah. ndimbal. non non non non lii kii kay yooyu kay mu ngi ci Gris Bordeaux ah, yëpp. man ko yooyu ñu jiit waay yi pour ñun la ak ah, ah. yooyu. Mhm. mu mel ni mbër yi am na ñu leen doon interpellé ci lu tax ñëw ngeen ñëw ngeen ngeen di doog a ñëw lu tax lu yàggaloon xaar bi. waaw mais daf de lu jot yomb rek surtout loo xam ne moom du yëfu kenn. faaw ñu toog waxtaan ci xool duñ koy doxalee. ba déggoo ci. waaw ba déggoo ci moo tax xam nga tey la ñu ngi ci moment bi ah. corona bi noo ko dundee ah, nuñ ko dundee lu ko ñëpp lu ko ñëpp di dundee d' abord xam nga. Mm-hmm. waaw dañu ñaan yàlla d' abord. Mm-hmm. xam yàlla génne fi balaa bi parce que àdduna bi instant yi dara dara dara dara doxul. mais yàlla suñ borom moom it. Mm-hmm. bu wàccee. balaam. nit ñi duñ mën nurul ñaan rek day ñaan d'abord mu génn ko ci mm-hmm. mais dina rek comme ni nga wax activité yëpp taxaw xam nga instant yi kenn demul kenn dikkul lépp taxaw mm-hmm. xam nga di soññaat population bi rek xam nga ñu góor góorgóorlu ci consigne ñu médecin yi joxe mel ni mbër yi bokk nañ ci ñi dàq social ci réew mi par rapport ak budul feebar bi sa yéen dimbali ay ci seen koñ yi ak ñoo xam ne seen soppe lañ loolu defe naa looy dëggal la de ndax loolu moom wax ju yàqu la parce que tey xam nga tey bu la nit ñi yaakaare lu ndaw ndaw yow mii rek yaa ngi social ñun ci lañ dëkk chaque jour matin midi soir que chaque jour ñi la yaakaar ñoo ñëw ci yow li nga am nga bokk ñoom xam nga ba tax na am na ñuy wax leneen dañu xamul rek parce que ñun moom ñu événement wala dara am pour ñu jóg chaque jour ñoo ngi ci dimbalante ak nit ñi waaye. Modou ma ci làmb ji da dégg naa gars yi ne yaa ngi entraîné temps entraînement yu intense. waaw waay instant yii làmb yi fii. <laughs> Ah. mais Modou entraînement noo leen koy def ak. Euh, déedéet déedéet couvre-feu yeeg yooyu. oui ma instant yii entraînement yi indiwuñ fii. mais di ngeen instant yi corona moo. mais di ngeen waaw man nag wax dëgg génn ma de. doo génn. li may génn bariwul xanaa dem ah. xam nga dóor li may dóor ñëw tëjuwaat quoi sinon temps yi demuma fenn. Mhm. Mhm. ñëppañ fa alhamdulilah ñëppañ fa waaye sant alhamdulilah. ah mais sant yàlla rek ñu ngi fuguma ah. waaye. waa roi des arènes moo njëkk a teew ci la waxu làmb de. waaw d'accord mais lan nga lan ngay sensibiliser lan ngay sensibiliser xanaa ñu def ni mbër yi di def rek. ah protéger wu gis nga Modou ni mu def protéger wu. ñëpp protéger di raxas loxo yi di diw. Mhm. ah ci gel bi. Mhm. te toog suñ seen kër xam nga yéen seen kër ngeen war a toog bu ngeen toogoon seen kër yëpp du fi am. loolu loolu indiscipline la couvre feu la ñu wax waxu ki ko def defu ko pour boppam daf ko def pour sauver la pour nga bañ a feebar kon nanu toog boo nee da nga fii nekk di dàqante alkaati yi bañ a dem c'est pas normal. boo yéen tamit il faut être révolutionnaire. c'est ça ah. ñu gis ni mbër yi def nañu benn benn acte de delloo peuple bi moom. peuple bee leen joxoon ñu jël delloo peuple bi peuple bee leen bëgg di toppatoo ñu leen di fu ñu jaar ñu wane leen Modou Lo nga ne Balla Gaye nga ne diwa nga ne xam nga loolu daa neex waaw ñoom li nu am ñu jël ko partagé ko ak peuple bi loolu mooy li am solo. loo ngi noonu. kii mooy. Yaxya Joob ah. lu mag laa ngi noonu waaye Modou si oto Modou non deux xeex rek kurbeñ bi. ngi am contentement trop ah waaw di am plaisir ah nam trop ah waaw ni ngeen ñu namee rek noonu lañ leen nammee waaw initiative bi initiative bu kuréel la. mooy association des lutteurs en activité ñëpp ci bokk ñu ñum ñëpp ñoo ko waxtaanee suñu biir xam nga mu nekk loo xam ne bon euh, c'était pas facile nag yombul parce que tamit ñun mbëri ñuy gisante du bari comprendre mais lii bi mu amee bi ci amee ay réflexion ñun ñëpp nag xam nga dañ ko waxtaanee suñu biir. ma jóg ko initier ko en tant que président des lutteurs mais nag euh, dama ci am contentement parce que contentement bi mu ci am mooy sama nawle mbër yi samay adversaire yi nga xam ne d'habitude ay tàkkusaan rek la ñuy daje mais bi mbir mi amee su ma am ci ay réflexion xalaat ci waxtaan ci ak ay mag ku mel ni suma grand Yékini ñu nekk ci di ci waxtaan bi demee nag ba war ko initier nag ak groupe beeg yëpp ku ci nekk dama la jël sama téléphone woo la expliquer la mbir mi nuñ ci waree fés comme ay patriote rek comme ni ñu gisee secteur privé bi di ko def gis yeneen gaa yëpp nekk ci dëkk bi euh, société yeeg yëpp di def di def di di contribuer malgré que ñun mbër ci social lañ dëkk parce que tamit mbëri yi koo dem këram ak quartier bu mu dëkk xam ni mbër yëpp ci social lañ dëkk waaye lii dafa nekk loo xam ne lu lu war lu symbolique la loo xam ne tey képp kuy patriote rek war nga ko ci war nga mën a fësal sa bopp ak ñu nga gisee président de la république avec son gouvernement bi affaire bi amee ba léegi business su àddina bi yëpp stagné dara doxul dëkk bi di metti nga xam ne ci koor lañ jëm biento affaire yi metti ñu gis loolu ñu ne nag dañuy soli dañuy solidaire suñu biir yéex nañ ko sax def waaye tey lii dafay wane rek ñu mbër yi euh, euh, dañuy gën a farlu suñu bopp pour lépp loo xam ne tey dafa laaj mbooloo nekk benn pour def ko. loolu rek moo moo war a. cas communautaire yi ngi gën a bari ba ñenn ñi sax dañ jàpp ni que dañu war dem vers un confinement total est ci loolu. ah loolu foofu te ñaan ñu yàlla mu yegg foofu cas communautaire lu koy indi rek mooy euh, mooy comme li ñuy wax rek pëccoxoo bu bari bi la les ronds-points jaxasoo bi loolu moo koy indi te j'espère que sénégalais yi commencé nañu conscient au début c'était pas comme ça au début da ngay dégg gars yi comprendre ñu gëmuñu woon sax na feebar existé na. mais bi ñu gisee affaire bi di commencé di dem di di di di di di di am ampleur si lañ commencé bàyyi xel parce que tamit gars yi commencé nañ conscient ni affaire bi buñ ci jógul xeex ko euh, ak matuwaay bu mat sëkk fi muy jëmee sax xamuñu ko. te ñu ta ñun on fait partie des pays les plus sous-développés dëkk yi ñu gën a développé da leen di indi problème waxtum laa ñun kon boog Sénégal yi conscient nañ ñu ngi commencé jël seen ay armes jël seen ay matuwaay parce que il le faut. waaye côté couvre-feu lan ngay wax euh, askan wi. Euh, aussi euh, sportif yi nga xamante ne ñu bëgg di entraîner ji et tout xam nga ba yenn heure yi. waaw man même man maa ngi dëkk Mbaaw presque sama buntu kër da ngay gis ay centaine de personnes ñu fay entraîner war nañ mën a entraîner mais toujours rek nañ respecté parce que tamit xamaguñu ñun feebar bi fan la jëm ak ñun. xamaguñ ko xamuñu ndax day durer deux mois xamuñu ne day durer trois mois xamuñu ndax day durer quatre mois xamu yàlla rek a xam comprend nga ñu conscient rek ci respecté normes yi nga xam ne tey. Euh, suñu médecins yu xarañ yi nga xam ne ñun dañ leen di remercier ah, parce que nag on a des de très bons médecins coolee fi nekk rek peut-être ñu baña am ay euh, ay plateau de ay ay ay ay ay manque ay plateau rek mais ay ay plateau médical rek mais nag on a de très bons médecins te nag c'est des gens c'est des personnes à saluer parce que tamit bi feebar bi añee ba léegi recruter ay médecins yoo xam ne ay ay ay ay ay ay ñu ay ñu bàyyi ñu bàyyi woon la ñu ay médecins retraités mm-hmm. kon boog ñooñu dañoo war a jaajëfal. jaajëfal le gouvernement Macky Sall waa qu'on dise mi ngi ciy def ay effort kon boog il faut qu'on soit solidaire ci feebar bi pour xeex ko pour mu jóge fi en plus di gërëm sama sama sama naataangoo mbër yëpp parce que waaw champion champion yi fi ñëpp ñoom ñëpp tey dañu ci dugg seen loxo commençant par euh, Yékini Balla Gaye Boy Niang Eumeu Sène Tapha Tine Bombardier new fii ba nga France xam nga Modou Lo tànk ba léegi may woo c'est pas facile tey xam nga Boy Niang xam nga Reug Reug xam nga Siteu association des lutteurs en activité ñëpp Dekki Làmb ñëpp dañu jàpp ci mbir mi dooleel ma ci parce que tamit c'est pas c'est pas évident tey ma ma regrouper ñooñu ñëpp mais nag gan ngal la nag bañu xamee ni mbir mi suñu suñu suñu mbiru bopp la di leen jaajëfal au fond du cœur ah yaa ngi